baay euh, Demba du ma la dekk sama micro te du ma la posé lii Ama Baldé Gris Bordeaux taxaw na waaw. Ama Baldé Gris Bordeaux taxaw na. may nuyu Gris di nuyu Ama ndax euh, ku na Baye Demba ne Pikine ndax la ma fa am muy nongoloo jam jaalo mi si jaaja ma sàmma neen Fall. Euh, Pikine nag man 5-5 bu ma fay wax du ma fa wax lu dul lu rafet ndax sama diggante ak nongoloo la. Ah, ma am ak ñoom relation bu nice amaa nag war a dajeeg Gris Bordeaux ah c'est la première fois nag mu yàgg dugg Fass war a dajeeg Gris muy Bordeaux di wax waa médina di leen wax ni euh, bu wane woon tey Yaafus mën naa ne tey du am combat bi kon na Medina jëpp jug Medina xam nga Pikine dañuy woote na cent pour cent muy dëgg ci ñoom nag ndax nag. lenn rek lan ma neexee mooy danoo booloo rawatina waa Médina ñu ni doonu booloo ñu bokk ndey ak baay Gris doo nag muy doomu Médina amul lu dul Médine euh, li ma lay wax mooy préparation bi dina uteeg yële waaw lii kañ maa la ko wax préparation yi mu def bi dina ute te loolu nag wax la li ma lay wax mooy nag gaynde takkal dàll yi dongali waw koŋ ndax nag làmb ji gaay yi dafa am lu ñuy xaar ci yow te boroom jomla la mën a entraînement nag di wax na nag Bordeaux Médina jug leen seen doom a jug muy Gris Bordeaux ndax ñun amuñu lu dul Médina waaye Médina daal li ma di wax mooy na ñëpp jug waaw. waaw te réew mi ñoo bokk ndey ak baay. ak Fass loolu derby la. te lu yàgg la loolu yàgg na ci jamonoy Moustapha Guèye ak Balla Bèye ma koy nuyuwaale moom it muy sama xarit euh, loolu dafa yàgg mais nag sa waa ji mooy Gris Bordeaux Gris Bordeaux man 5-5 maay wax ak yow. loolu bàyyi mais seen tëggkat yi amoon na benn vidéo bu ma xool. Mhm. ñu meroon ne Gris na bàyyi. nan la demee woon koroon jour boobu stade mun nga ñu ko expliquer tuuti. noonoo wax naa ko ci sit boobu booyi boobu dañu mer rek te nag neexul ba neexul nag euh, am na loo xam nag neexul ci xol moo tax keroog ñoom mu demee noonu ñu génnee loolu mais lendemain bi bi ñu toogaatee boo indiwaat seen xel xam na ni Gris Bordeaux tey fii mooy fii mbër mu mag jënuy ah, di mbër yëpp mooy may nuyuwaale sama rakk ji Ada Fass Lac Rose ah, di lañ leen ñaanal ñoom ñu am ay combat muy Lac Rose ak Gris di ñaanal waa Fass yëpp li ma lay mën a wax mooy beneen bi mooy euh, ñun medin ku na jam rek naani waaw medina fii la lëpp a dama ne fii la lëpp a xewee ma ngi nuyu waale tamit sama maire muy monsieur Bamba Fall di maire Médina di sama xarit di nuyu waale gaa yëpp ay messi mhm. ah di nuyu ñëpp daal mhm. di nuyu ñëpp di wax naan fii mooy Medina te ñun ñoo bokk ndey ak baay mhm. yàlla na jàmm yàgg daal sunum réew dafa am leneen lu ma fàtte bu dee dafa am leneen lu ma fàtte. dara non dañuy ñëw dangay préfétoon ni di def émission mais damay ñëw ñu yaatal. fàtte woo dara merci beaucoup. mais di wax naan tey Youssou Diagne daal di Youssou Ndiaye daal tey dina yëngal fii. dina yëngal sañ daal man bëgg naa ko. maa la wax loolu. merci beaucoup mi ngi noonu. <laughs>